solo rek mooy acte bi nga xam ne président de la république def na ko Touba par ministère de l'énergie par directeur général de l'ANER bi nga xam ne un an et demi ñu ngi ci di waxtaan ci projet bi bi mu bi ñu ko initié yo wax ma quota Touba ma ne ko ah directeur de loolu baax na lool mais Touba day quota boobu nga ma wax vraiment war nañu seet nan la ñuy def ba gën ko amélioré dolli ko ba muy lu am important lu visible ci dëkk bi defe naa ne biñ ci waxtaanee def na ko pili de dix fois li ñu programmé woon loolu nag ma di ko ci sant bu baax di ko ci gërëm eh, ci turu sëriñ bi waaye ci turu conseil municipal bi ci turu euh, population bi yëpp ñu topp ci booba ba nëgë ni waroon nañ bokk ci dëkk yi njëkk a am mais ci nan la ñuy yokkee quota bi ba mu ma deux mille lampadaires loolu moo tax fan lay jëlee nan lay def nan lay organi defa organiser ba bu joxee Touba li muy jox Touba di lu am important man a jël torsion yi nga xam ne torson yu guddi lan loolu moo taxoon ñu yeex ko tàmbali ba fan yële nag mu ñëw lu ma deux mois ci gannaaw mu yebal fi techniciens yi techniciens yi ñëw ñu ànd ak ñoom def étude ci fi nga xam ne ñu euh, confirmé na ne danañu jox deux mille der ci ci ñu bi techniciens yi ñëwee ànd waa ak waa commune ci ndigalal xalifa général des mourides mu boole ñu ak Cheikh Bass ñu dem waxtaan ak ñoom ci torsion yi nga xam ne nii ñooy privé ci li nga xam ne première phase bi foofu lañ ko war a def biñ ko waxee mu ne nañu tàmbalee ci jumaa ji fii nga xam ne ndax dëkk bi jumaa ji mooy symbole bi mooy li nga xam ne moo njëkk moom lépp lu ñuy def loolu foofu la war a tàmbalee looloo tax ñu tàmbalee ko fii comme ni ko Cheikh Mouhamadou Moustapha tàmbalee woon ci jumaa ji bi mu xalaatee jumaa ji jumaa ji la rëdd moo tax mu indi bi moo tax bi muy bi ñuy tàmbalee ñu ne nañu tàmbalee fii mu continuer jaar Daaru Xudus dugg Madiyana dugg Jannatu Mahwa dem Touba Njaareem ba ca rond-point Touba bi ci dëwaay yi nga xam boo wàccee Ila Touba foofu nga jëm premier torsion bi boobu la deuxième bi day def corniche bi tour de corniche bi troisième bi mooy kër kabo corniche jël kër kàbbu jëm ci daral gi ku nekk foofu xam ne li ñuy jànkuwanteet ci ni ci jamono yi surtout jamono yi tabaski ak jamono yi màggal ci dafay am solo lool ci sécurité bi waaye le ak lenn ci marché Ocass ak yenn torsion yi nga xam ne ñu ngi ci biir Daaru Xudas ay ñu ngi ci côté marché Ocass donc yooyu yëpp identifié nañ ko pour fi nga xam ne nii fi la ñu war a def làpp yi d'ici un mois un mois di demi avant màggal dëkk bi yëpp mën a daj ci li nga xam ne nii moom lañ ciy def loolu mooy moom lañ doon lancé tey moo tax ñu woote l' de conseil conseils municipal bi ci ndigalal sëriñ bi invité waa yëgal ko monsieur le sous-préfet Mansour Diallo waaye yëgal ko waa Touba ca kanam yi nga xam ne ñoo seqoon liggéey bi parce que commune bi mi ngi def na li man ñoom ñi def li man bu état ñëwee aussi jàpp ci indi ci euh, contribuer lu toll nii loolu aussi ñu dafay lu am solo ndax da ku nekk gis na ci gannaaw seen première phase bi bi ñëwee muy Touba kanam indi nañ fi ay lam ànd ak ko ak commune bi ñu monter ko ci mbooleem dëkk bi ci différent quartiers yi muy loo am solo fekk li nga xam ne commune bi yëpp mi doon jéem def na ko fi muy quartier yi nga xam ne commune bi jot na ko éclairer loolu aussi muy penc yëpp muy da guy bind daaru minam daaru xudoos euh, ci quartier yëpp ba asalem fépp foo xam ne nii lim commune bi man def na ko fa ñoom it ñu ñëw appui ci loolu dolli ci loolu lii ñëwaat dolli ko ci loolu yaakaar naa ne dina am solo ci dëkk bi dana yokk aussi dana am solo aussi ci sécurité bi nga xam ne nii moom la ñuy jàmbat ci jamono bu nekk. programme bi nag li ko da am na sànq posé problème mu maintenance dañ d' abord dañu tànn ay lampadaires de qualité yoo xam ne leer nañu ne feek ñaar fukki at ak yu topp boo fu ñëwee dañ ko fekk. bu ñu ko installé pare entreprise bi ko installé dañu signé moom contrat de maintenance pendant six ans juróom-benn at ñoom ñooy assuré maintenance lampadaires yi mais bu weesee maintenance dañu signé extension garantie donc lu nekk ci lamp yëpp dañ ko garantir li ci yàqu aussi ñoom ñoo koy remplacer. bu loolu weesoo bu juróom-benn at yi weesoo ñi ngi xalaat naka la ñuy gérer lamp yi ba nga xam ne dina am pérennité au moins ci vingt cinq an jëm kaw. li tax ma vingt cinq ans parce que batterie ki nekk nii dana durer déjà dix ans panneau yi mën na durer vingt cinq ans lamp LED yi durée de bi bi di euh, douze ans la ñuy xalaat bu jeexee ñu changé ko yi ñu ci def yëpp dana am au moins quinze ans donc loolu mooy tax effectivement euh, lamp yi wuuteeg chantier yi ñu fi daan def mënuñ wax ne yi bu amee at kenn dootu ko ñu solo bu amee ñaar at kenn li leen di garantir mooy éclairage bi dana fi def au moins vingt cinq ans te ñun muy nguur gi danañ ko suivre ni ñu ko war a suivre liggéey bi nag euh, door nañ ko tey waaye am nañ yéene mu pare balaa màggal gi incha allah li monsieur le maire wax def nañ planning bi ba nga xam ne balaa ñu àgg màggal dañ boucler deux mille lampadaires yëpp ci ci Touba ak li ko wër donc loolu moo taxoon tey ñu déplacé wu ñu ne comme dañu def lancement tamit projet président mu defal ko gox yi rawatina nag amul yéene trop ci li ñuy wax les cités religieuses jox ñu ndigal pour ñu beral lañ ci loxo loolu moo waral tey effectivement euh, li ngeen am ci quota ak li yeneen stérilisé am ci quota wuuteeg